Pape am na leneen loo xamante ne bëggoon naa ko ñu waxtaan. parce que bari na ñoo xamante ne d'habitude ci réew mi. yu mel nii bu amee. foo jaar ñu jéem a wut ay porox ndoolu ba joxe seen numéro bopp gis nañ ko ci liggéeyu Touba jëm ca kanam gi. am na ci ñeneen ñoo xamante ne ay arnaqueur lañ def nañ ci seen i numéro téléphone. di joxe est yu mel noonu yéen a ngi koy sóoraale. waaw loolu dal na ma léegi léegi tey ci suba. tey ci suba la ma dal la ma benn waay woowee ci numéro inconnu ne ma man la moo géet waaw moo géet waaw mu ne ma man la moo géet bi mu ne man la moo géet mu ne ma dam lay yónnee dam lay yónnee euh, cinq millions un un million hmm. léegi nag lan moo nekk sa compte ma ne ko non man dama am cent euros bu ma récupéré léegi sama compte dara nekku si dindi naa li ci nekkoon yëpp mu ne maa ngi lay envoyé léegi kii euh, nu mu un million hmm. léegi mu ne ma euh, cent euros yi naa ko dugalaat sama compte ma ne ko waaw amul problème après léegi soo ma woowee ci numéro normal dinaa ko ci dugal si la woowee liiru bii liiru bii tamit mu proposé ko cinq millions si laa woo liiru ne ko kooku arnaqueur la dégg nga fexeel mu woo ci numéro normal mais bul ko envoyé dara comprendre nga tey jaamu yàlla bu mel ni tëdd ñëpp di ko dimbali ñoom ñuy xool lu ñu jëlee xaalisu xale bi loolu tamit ñun rafetlu wuñ ko mu dem seeti ci leneen parce que man loolu du jàll fii si man xam naa ko bu yàgg xam naa ko xam naa ñi koy def lii ñun rumeur yi jot nañ ci bu yàgg woo na ma tey mu moo ma yees ci téléphone ci benn numéro inconnu numéro baa ngi nii comprendre nga maama bu ma wooyee nag si laa ne ko nag woo ma numéro bu ma xam parce que numéro bii du ma xam kan la da may woo parce que man du ma jël inconnu da may woo soo koy dimbali jarul may dugal xaalis da ngay dugal li ngay dugal ci laa gaaw woo kii balaa muy parce que ñaari numéro yi ñoo nekk ci affiche sama numéro ak numéro liiru ci woo liiru ne ko bu la woowee bul ko dugalal dara tur moo géet la joxe waaw tur moo géet la joxe tey xam nga tey ku ñuy am na ñoo xamante ne dugalal nañu sax du man yàgg naa jot xaalis te yoo xamante sama doo jarul ngay laaj xaa dugalal ma temps mbali ni rek doo def nii daal waaw jéggal nañ ko nag waaw jéggal nañ ko yàlla na ko yàlla defal jàmm jéggal nañ ko ñun moom jéggal nañ ko waaw waaw jéggal nañ ko comme ay jullit lañu jéggal nañ ko waaw